Horizon Sahel di yëngatu ci ndimbal hôpital Heinrich Lübke bu Jurbel lay indil ay matériel médical yu bari loolu loolu nag gannaaw yàlla bu ci hôpital bi jotee loxoy loxoy doomu njaaram bi di wuyoo ci turu Basiru Seen génnu ci mu doon nag mbégte mu rëy loolu ci directeuru hôpital bu bees bii le Bokar Saw mbégte la ci ñun mbégte la ci man mi di directeur hôpital bi mbégte la ci personnel bi don bi njëriñam ci hôpital dina bëri lool parce que li ci nekk ci matériel dafa dafa dafa am solo te matériel bu am njëriñ la la buñ soxla woon lool surtout lu jëm ci ay couveuse lu jëm ci matériel pédiatrie lu jëm ci matériel broc yooyu yëpp am na ci donc don bi dina am njëriñ lu lu bëree bëri bëri ci dimbale hôpital bi ci ay jumtukaayu liggéey ki nga xamante ne nii moo fa teewaloon kooku di lay Basirou Sène nga xam na nii moo fay wàllum transport bi indi matériel boobu moo ngi ñaaxaat directeur bi ak personnel am ñu gën a saytu bagage yooyu ba njëriñ gi ñu koy doyee askan wi mën kaa yëg Ali Sène xanaa am ci mbegte bu rëy mbégte bu rëy en ce sens que xam naa ne Basirou am na njëriñ euh, dëkkam am na jëriñ sax réewam euh, moo tax sànq moo koy wax ci sama allocution bi nee naa ñu ngi ñaan mu am yeneen Bassirou Sène yu bëree bëri parce que loolu dina doon intérêt hôpital dina doon intérêt région bi waaw. Euh, ma bëgg nag comme ni ma ko waxee sànq rek ñu góorgóorlu ba ñi ñu ko defal usage bi ñu mën koo jëriñoo njëriñ li gën ndax loolu dina tax su ëllëgee ñeneen sawar topp ji. mais fekkee ne quelque temps après parce que seen jaar wala ma jaar ñu ne matériel bi fekk naa ko ci poubelle bi loolu xam nga du encouragé nit ñi mais foog naa ne comme ni ko directeur bu waxee comme ni ko boobu nag daa mel ni kii di directeur hôpital bees bi dégg na ko bu baax ndaxte lépp loo xamante ni nee na jumtuwaay la nañ ci jéem seen kéemt kàttan ba matériel yi war a dugg mu dugg fa. jëfandikoo bi moom ci comme ni ko kii waxee docteur bi waxee léegi rek. ci anam yu rafet rek lay mën a doon je que matériel bu mel nii kenn mënu ko sàggane kenn mënu ko foowe njëriñ bi njëriñ bu wér lay doon toppatoo bu wóor aussi lay àndal toppatoo bi nag ci ñi koy jëfandikoo lay doon d'abord ak ci waa maintenance ñi nga xam te ne ñoo leen di dimbale suñu amee yenn jafe-jafe yi ci jë jëfandikoo. nouveau directeur mbégte la ci man et dina dalal sama xel ci xam ni hôpital am na collaborateur yu mel ni Bassirou Sène je pense que lii luy tàmmale la mais xam naa ne du doon luy gëj en tout cas ñun. dañ ko faral di sonal saa yu ñu jaaxlee nañ ko woo pour wax ko suñu ñàqare ak suñu jafe-jafe fu mu toll parce que lii moom luy dalal suñu xel la.